sëñ Bass Abdou Khadre Ceddo Murit ak seen concert gu mel ni yéen yàlla na leen ak senegal yi dal lépp lu bon lu yées loo leen laat ci askan wi ci barkeb laa ilaha illallah ci barkeb alquranul karim yàlla na këpp seen kaw ku ñu gën a yées ci askan wi mooy yéen barki alquran ndax alalu àdduna jarna lii dama dikk ci li nga xam ne moom la porte parole murit yi wax di Bass Abdou Khadre Mbacké Bassirou Mbacke Abdou Khadre ci Pikine gi mu demoon barki démb di fa ubbi xaw ma représentant wu Serigne seen yooyu ñu def tappale yooyu nga xam ne bu ñu bëggee politique yooyu la ñuy dox naan dañuy ubbi fii lii dañuy ubbi fële moo ci raw moom dem joo xam ne ku dégg wax lay wax nit bu jaayee daal dañ ko jël jébbal ko sëñ amuñu bëgg amuñu taal suñu yoon nañu ci am na xalaat wala bëgg ba nga bëgg yàq lu bari la yàq gi ba muy bëgg jaaxle seen diggante jël ko politicien yi xëccoo yëpp la wax amu ci kenn koo xam ne wane ko jëlee suñu tubaab ñi nga xam ñëpp loolu laa wax ñi ñëw ñi nga ñëw te ñëw koo xam ne war ngeen ko jënd suñu tubaab kon dem na ba nii ànd ci parti politique sax moo leen gën ànd ci jëndoon ànd ci ab loolu nag pexu seytaan la seytaan nag boobu. yaay. voilà dengen ngeen ko li ci ñor rek moy nee na politiciens yi jar ñoo fa doon fanatique jarul ngeen di fanatique ci politiciens yi waye mom dafa yaakar ne loxo ci pos ci mom rek la yey mom dafa yaakar ne loxo ci pos ci mom rek la yey def nek ci ay tapala la nek nekku ci dekk ay milliards la yoré yoré ay jéegam tok di len nappaaje di len di len di len exploiter yeen talibé def len njaam ci turu mamam Serigne Touba bi ngeen bëgg ci lay jaar di len nax yeewu len ngeen nek ay nit dem len ci kërëm ga ci ñaari kërëm yi nekk Ndakaaru ci VDM bi ngeen dem ci kër chatom ba ca héliport ba ak limi ñew paré ak France fu nek mu difa dem limi limu nek yépp xam nañ ko daf leen di nax limi wax du diine nekul ci diine mom ci mafia lay dox digle cangaay da fekk nga wara sangu ba paré dogo digle digle cangaay yow yaa ngi naan politiciens yi jarul ngeen ciy fanatique ma defe na yow démb barki démb yaa toog ca ginnaaw fañ doon waxe ne dama bokk ci gétt gi te war a naan ci meew mi mel ni doomu gerte ca ginnaaw ne tong ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi déedéet def leen ndànk wax ngeen vingt jox la ay hectares ci suuf soo xam ne Sénégal gépp ko moom ar na ñoo fa nekk ñu dagg ko jox la ko nga jaay ko laata këyit yi di génn nga nga jaay xaaroo sax këyit yi génn ci sa tur bàyyi bi génn ci sa tur nga soog koy jaay déedéet bañ la ko joxee wax la ko nga nga nga dem encaissé cinq milliards ci waa ji ba noppi ne ko demal ca domaine ñu def këyit yi ci sa tur mu nekk ñaari sàkk alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله وبعد فيسعدني أن أتناول الكلمة باسم الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه مرحبا بكم يا فخامة الرئيس وشاكرا لكم على هذا الإنجاز العظيم الذي يعد قفزة مهمة في السير بالبلاد Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ah, sans ça, aucune je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société Ça, c'est une autre affaire. yéen li ngeen di laaj li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla joxu joxuñ leen ko ngir yàlla yéen itam deful leen ko ci yàlla man nag li ma leen di laaj laaj juba ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di leen ko defal ci yàlla looloo ko wute la kon nag Serigne Touba eh, noonu mu noonu ko suñu borom defaroon kon loolu moo tax lépp lu waaye sàkku ci moom ni nga ko bëggee ni la ko sunu borom di dogale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba lii mu doon bunt xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sag cant ci moom nee na am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaati jitaay sëriñ Tuubaa nee na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dolli ko bi yàlla doo doogalee itam mu nekk fi sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddali ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yom kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla suñ moom jàppule la dimbule la ndax ay nax doomu aadama jar yi lii yéen lan ngeen di waajal maa ngi gis ceddo gis ko ci Facebook bi mi ngi ci dugal naan da ngeen di défendre Serigne Bass Abdou Khadre bëgg a jël waxam ji kii ko nay da ngeen ñëw xeex ak nit ñi ci réseaux sociaux yi ceddo yéen kan ngeen yàpp yéen yéen ñi gën a bon ci réseaux sociaux yi mooy ceddo muri saarix mooy yow ay toog yéen di jëy sëñ Tuubaa yàlla yéenay toog di fen ci diine lislaam gi di duul ci diine lislaam gi bu leen fontoo doomu aadama yi yéen nit ñi naan nañ leen nit ñi xam nañ di yéen ay fenkat ngeen leen fontoo nit ñi nit ñi xam nañ ni ay dajjaal ngeen ay xaji bon mooy yéen man waxee ma côté diine de ci côté yërmandew askan wi laay waxee ak yéen mais yéen ñu gën a yées ci askan wi réseaux sociaux yi ñu ci war a dàq mooy yéen yéen ñuy toog di jiiñ seen tuubaa yàlla yéen ay fenkat yi mag yi yéen ay kaza yi fen rek ngeen fi nekkee ay sëñ Tuubaa mooy falaateeg dëkk bi kenn du falu ko du sëñ Tuubaa yéen a mën a fen yéen yéen ñi yéen ñi gën yées ci askan wi billaahi lazi laa ilaaha illaa seen wax yépp pour fekk nit ñi di xeex ci réew mi hôpital yi mat nit ñi dund jàmm ngeen di def yoo xam ni di manipuler askan mais sëriñ si seen duul yi moo doy bu leen fontoo nit ñi bu leen fontoo nit ñi di ngeen di def ni seen bopp ngeen koy def defoo leen ko kenn nit ñi yeewu nañ mënootoo leen fen kenn da ngeen seen fen yi moo dem ba kalaate yéen ngeen war a rus nekk fii di fen rek yéen lan ngeen di wax lan ngeen di défendre sëñ Bass Abdou Khadre lan ngeen di défendre sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre dafa moom Sénégal Sénégal Sénégalu ñëpp la ñëpp ko bokk senegal ñëpp a ko bokk Sénégal ñëpp bokk luy taal réew mi luy taal réew mi nit ñi dañ koy wax yéen yéenay yéenay yées ci senegal ndax yéenay toog di jiiñ Sëriñ Tuubaa yàlla yow ceddo yow ñaata yoon laa laay fal yow mii jiiñ Cheikh Amadou Bamba yàlla ceddo yaa mën a fen yow ceddo murit yaa mën a fen fenkat bi kazzab yow yaay yow yaay noonu Serigne Touba bu bon bi Serigne Touba de woote ne moom yàlla la yow nga ñëw fekk maamu jàmbur yow ceddo bon bi nga ñëw jël sëñ tuubaa maamu jàmbur jël sëriñ Touba di ko jiiñ yàlla Serigne Touba toogul fenn woote woo yàlla yow yow noonu Serigne Touba nga yéen système bi ngeen fi nekkal yéen dajjaal ngeen fi nekkal doo leen ay nit yu baax ca doyow kuy fen fen gënut rëy nit ki nga taxaw di di jiiñ nit yàlla yow jiiñ nga maam borom Touba yàlla yow maam borom Touba sunu maam la ñun ñëpp ku nu fonk la ngeen toog di business yi Serigne di fen rek di fontoo nit ñi waaye ceddo billaay doo doy ba subaak jàmm rek ceddo doo doy de nañ leen fi génn dégg rek ba ngeen génn ceddo yow li nga fen lépp fen a fen a fen ba fen fu dara nekkul bu leen ñu amer de ñu amer de laa seen yooyu moo fi jeex nit ñi dem nañ ba xam leen bu baaxa baax jëli nañ leen de yeen japp gene man gene naxati sénégalais yeen sëriñ si ban jaar ngeen am ah and ak politiciens yi nekk bi di fen rek dina di fen askan wi rek xam nga ni ñaata fen gen fi fen ñaata fen le fi sëriñ fen ñu waxande deug ta yalla tax dafa am lu gëna ñaaw lu gëna yees yeen di ngeen wax yeen ñu tuddé seen bop sëriñ dafa am lu gëna yees yées utal borom bi subhanahu wa taala morom fenkat yi kaddaabi dajjaal yi bu leen fontoo nit ñi nga leen gis ci réseaux sociaux yooyu rek yéen doo leen ruus sax yow li nga fen yaag Mor Mbaye nit ñi vaar leen ba seen mbokk murit sax xam na ni sax da ngeen di fen yéen murit sax gëmatul leen pour ngeen xam loolu ba ci Bass Abdou Khadre moomu murit bu waaye di rek lay gëm ab sëriñ bu toog fii naan kenn du fi falu ku dul ku dul lu neex yàlla yaa ngi toog fii barki démb naan sa kër yi li la fi wax déggal ma naan sëñ bas booy bas laa la wax yow toogoo fii nga ne sa kër yi nga bëgg maye nee naa la mayal sa kër yi tontu ci loolu bas Abdou Khadre tontu ci li ma la wax nee nga sa kër yi yow bas Abdou nga ne sa problème mooy sa kër yi nga am moo la sonal pour da bëgg pour jaayanteeg sëñ Touba pour léegi nga ji sa kër yi pour doo am ay kër loolu da ngay nax taalibe yi pour taalibe yi bu nu liggéey bu nu def dara bu nu am ay kër. ñuy torox lu lu liggéey jox la ko di liggéey sëñ touba liggéey sëñ touba mooy yow ñu lay jox xaalis waaye liggéey sëñ touba mooy liggéey sëñ Bas muy liggéey sëñ Bas Abdou Khadre nga leen di noggatu bëgg a lekk seen xaalis yow Bas Bas Abdou Khadre yow da nga bëgg a nax sa taalibe yi li ngay wax naan sa gàlle boobu nga yor tontu ma ci loolu ba tey sëñ Bas tonto ma ci loolu sëñ Bas Abdou maa ngi lay xaar sa réponse sa kër yi man duñ Diop Watawassy bi làq néegi sa kër yi moo la sonal ndax bu démb doon tey doo fi wut ay kër da ngay sa maam Serigne Touba da ngay naxaate nee ay sóob la man Medoune Diop Watass bi daa soxla naa sa kër yi may ma ko may ma ko bu dee sa kër yooyu moo la sonal pour nga liggéeyal sa maam may ma sa kër yi nga dem bayal sa maam yow ay naxaate rek la pour lan sa naxaate yu yomb yooyu léegi pour léegi taalibe yi léegi bu ñu ut kër léegi li nu war am léegi liggéeyal sëñ Touba bi mooy léegi ñoom li ñuy job ñu jox la ko yow sëñ Bass Abdou Khadre nga yokk ci ay soxna sa kër yi nga yor nga dolliwaat amaat yeneen kër amaat yeneen i oto takkaat yeneen i jongama ah boo paree xaalis boobu léegi yow nga dugal ko sa compte banque léegi liggéeyal sëñ Touba mooy liggéey sëñ Bas sëñ Bas da ngay sëñ yow di sëñ Touba bu doon ni yow la mel ni yow la mel du am benn taalibe kenn du ko topp kan moo koy topp ku baax sa maam sëñ bu meloon ni yow laa sëriñ Bas ànd ak politiciens yi di naxaate ay jël nguur nga naan yàlla di fal nguur nga naan sëñ mooy fal nguur señ Touba bu fi ñëw yàlla kenn la la wax yow yaag señ Touba dara ngeen bokku tus tus ngeen bokku dara kat rek nga kat rek nga ak sa lex yu duufi bu leen fonto sénégalais yi fii di ngeen fi bëgg gaay yi jëli nañ leen de di ngeen fi bëgg loolu loolu amatul de mi ngi xewi de barki alxuraan des na tuuti señ bas sa kalaas googu bu ngeen joobiwut bayal seen bopp kenn du leen bayal nit ñu dofatuñ sax ba leen di bayal taalibe yaa ngi conservé bu baax baax booy bo ngeen ubbi ji ay daara jangal nit ñi alcorane delo leen ci yalla mo geut seen ak seen caaxaan yi ngeen nekk ca doyow nañ la fi gis rek senegal sa xol moy jeex quoi parce yalla ñi ñu doonoo nit ñi man dal seigne Bass question bi la laaj la bëgg nga tontu ma ci sa kër yoy nga bëgg may sa kër yi nga ne pour da ngay reccu pour sa kër yi nga am pour lan bu dembu don tay do am ay kër da ngay dem di liggéeyal Serigne Touba rek yow demal yow nga bayi tol, yow sëñ bass nga dem bayi tol, nga la laxasaay nga def ay tanku neen dem bayi goup yenu Yudis. diis sa keur yep nga maye ko may mako suba suba nga jeexali keur dem bayar sa mam ay naxate kase ay naxate kase yow kula yaakar nga bayal ko tay mu de legui lol lan la pour yau talibey ne comme te bass mo wax li legui yow talibey ne di liggéey di la jox yow joxu ñu ko sëñ Touba de yow lan koy jox yow sëñ Bas yow yow te yow doo sëñ Touba yow sëñ Bas nga yow Bas Abdou Khadre nekk koo xam ne ki nga ànd ak ay politiciens nga àndal Mor boobu war na génn te tey naan sax da lay xeexal Mor Mbaye mi fi toj këru taalibe koo xam ne asan Diouf mu wax dëgg sa moonin bi foo ko jëlee wax ci yow ba mu waxee looloo tax ñu indi Mor Mbaye ñu Mor Mbaye wax a wax toj ban toj bañ jàpp fii Assane Diouf indil ko problème ci loo xam ne ay caaxaani kase sëñ bas nga seetaan ko tey nga ñëw toogaat ku mel ni Assane Diouf ak ak kii mel ni kii nu mu tuddati nga taxaw toogaat ak ku mel ni Mor Mbaye ak ak Ceddo ñu toog di wax seen waxi dof yooyu bu leen fontoo nit ñi seen dil ci boppam moo kalaate nit ñu dofatuñ jinne jàpp leen taalibe buy dof doflu rek wala koo leen jabar moo leen di topp mais ñi am xel ñëpp am fulla am fayda si dem nañ liggéeyal seen ndey lu nu am jox ko seeni i ndey jox ko seen i baay buñ amee lu ñuy joxe ñu dem joxe ko ci hôpital yi buñ amee lu ñuy joxe ñu jox ko néew di doole ñi ko soxla mais comme pas yéen pas yéen amuloo leen benn njariñ askan wi yow lan ngay jóg yow di génnaat sañ Bas liñ la wax yëpp doo toog nga changé soppi war a ubbi daara war a dem nekk ci kii mais nekk fi di foye taalibe yi quoi dëkk bi dëkk meer dëgg la lii di ngeen fi yaakaaroon amatu fi de barke alxuraan nit ñi yeewu nañ dofuñu jinne jàpp leen mais li ngeen yéene ci askan wi ak li ngeen yéene seen taalibe ci ak mbon yàlla na këpp seen kaw allahuma munzilal kitaabi sari al xisaabi ahzim ahzaba allahuma ahzimum wa zazimum barke alxuraan gàddu ngeen seen suñuy àq man mii de gàddu ngeen sama àq ni ma leen bañee bañ te yàlla tax rek laa def barke alxuraan ndax da ngeen ngay toge keddo ay kelas keddo gi fena fena fena fena fena fen dafa wessu ku nit kuy tok di yalal Serigne Touba nan yalla la yena meuna fen yena meuna fen qul huwallahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yakul ko fan at fi mus dot fi nanit ñeex li ngeen amatu amatul nit ñi ñu de seen tapale yoy ngeen jël ko duggal ko seen caay na bu suba ak jàmm incha allah sama bopp ngeen ñaanal mu wër assalamu alaykum warahmatullahi